on est c'était débat de très bas niveau ndax euh, injure yi loon si gis ak euh, li nga xam ne mooy euh, violence yi mais Ousmane Sonko dafa jëlaat baar bi teg ko fu kawee ba mu doon wax à Ziguinchor wàllum monnaie locale complémentaire ñu bëri nag ñii ne baax na ñeneen ñi affaire bi def leen reetaan yow en tant que économiste monnaie local boobu noonu ban jàngat nga ci am moi je dis souvent que euh, euh, au moins c'est intéressant pour une fois ñu am débat euh, les voilà, hommes politiques nous poser voilà débat au niveau sur sur ces choses extrêmement intéressantes <laughs> monnaie locale du dara lu dul permettre waa waa waa Ziguinchor mhm. xam nga dëkk yooyu dañu dañu nekk dëkk yoo xamante ni xëy na lu bëri am nañ ko mhm. c'est pas du ñu dëkk yoo xam nit ñi ay nitu c'est pas des hommes d'argent c'est vrai dëkk yooyu nit ñi du ñu ay nitu xaalis parce que. système de troc bi Dakar la la nit ñi di am xaalis di ah. wanante mais am na dëkk yoo xamante ni les gens cherchent juste la qualité de vie dund dund gu dund gu bakkene maintenant gu bakkene googu nag euh, da da bokk mhm. nga mën a ñu jàppalante suñu biir mhm. c'est-à-dire que man lu may wut wuti à mille kilomètres mhm. dama koy chercher à zéro kilomètre cinq kilomètres dix kilomètres damay privilégié yu taqaloog man maintenant bu dee ku day def comme man ku ne di privilégié à mais balaa bu ñu gë gën a gën ñu bëggee protéger stratégie boobu. nga mhm. xam dañuy yem ci suñu biir di di jàppalante suñu biir. Mhm. su ma soxlaa soow au lieu que may jëndi soow bu ñu may jaay ci boutique yi. Mhm. ma jënd soow bi pël bi eh, am nagam yi fili. ma ne ah kii kat après mën na xaw ma xaw ma ndax cere la soxla xaw ma ndax dugub la soxla xaw ma ndax xaw ma ndax. maintenant au lieu may tax di ko sama ceeb ak sama dugub nañ ko jox benn bon boo xamante ni benn bio boo xamante ni mën naa dem jën lu ko neex mais ñun ñëpp ñu fexe ba tëju suñu biir eh, mooy économie solidaire jàppalante ñuy def échange suñu biir ok léegi euh, moo ne buñ ko leen rek la soxla confiance. mais échange si euh, seen biir boobu les euh, docteur est-ce que yaakaaroo mu indi benn sorte de communautarisme parce que aussi la Casamance mun nañu wax ne c'est une zone assez sensible aussi docteur. mais mais c'est pas sensible et loolu insulte bu ñuy def tous les tous les Casacés et ça fait ah. très mal. Mhm. tey je faisais un cours avec des des professeurs d'économie. Mhm. yoo xamante ni dañu nekk en formation. Mhm. et je sais que. loolu mooy gën a métti les Casamançais les gens dañoo jàpp ni Casamance moom kenn loo ci war a wax rek no kii rebelle la. wala mais ils ont vécu quand même man dem naa Casamance une fois. gis nga Casamance moo ëpp sécurité foofu Dakar bokkuñu sax. c'est ni ngay déggee guerre bi ñoom fekku leen si. Mhm. mais il faut que ñu ñu ñu bàyyi euh, pour man Sénégal dañoo war a bàyyi jël Casamance def ko comme loo xamante ni luñ fa wax rek c'est wolof yi ñoo tayal. ñun dañoo on est très paresseux. ah ñun wolof yi <laughs> waaye li ñu naan sama pël bi sama naar bi sama tukulóor bi ñàkk yi tout cela. la vrai noonu la ñu jàppee Casamance. ils font aucun effort pour étudier dëkk boobu. xam ni bu gis nga bu ñu démystifié wul débat yooyu. Macky Sall taxaw na fi ne ne ne Fouta foncier la. c'est bu ko Sonko waxoon ñëpp commencé analyser mais lu tax ma naan foofu xanaa dafa bëgg a nekk président Casamance. Mhm. pourtant Macky wax na ko Fouta c'est pas grave. Mhm. il faut ñu commencé di di di banaliser. discours yu jógee Casamance. Mm. on n'a pas le droit di ko yóbbu au premier degré comme si non ku dëkk Casamance boo waxee rek un un étudiant m'a dit ni. gis nga bu ñu ay championnat bu ñu seraan sax di football wala di supporter yaa ngi gis ñeneen ñi. Mm-hmm. bu ñu mat ñu ñuy traité de rebelle wala yu demee noonu. et ça fait très mal. Mm-hmm. et je pense que il faut que Sénégal xam ni. Mm-hmm. Euh, à un moment donné. ñoo ñuy wax rebelle xamuñu sax lan mooy rébellion. ci ville la ñu dëkk boo demee Casamance nit ci la ñu dëkk ils sont plus en que nañu banaliser discours ñu dëkk Casamance. Mhm. mais nañu bàyyi di ko yóbbu au premier degré et je pense que un maire day def ay propositions. il appartient maintenant à sa localité bu ñu gisee nii loolu arrangé na leen arrangé na leen parce que économie solidaire amul dëkk bu mu arrangé wu. Mhm. loolu lenn rek la lay permettre parce que suñu dëkk yi li tax li tax mu ñu sonn mooy lépp bitim réew lañ koy jëlee. tout à fait boo mënee xeex yow ba sa waa dëkk lépp lu ñu soxla ñu jëlee ko ci biir réew mi rek la ci ñëpp. mais monnaie boobu Elexsi biir euh, bi ñu ko taxawalee euh, yaakaaroon ne dina am euh, concurrence diggante franc CFA ak boobule monnaie locale wala sax CEDEAO dem ba teg ay daan. non c'est que monnaie boobu bu amoon. Ah. bu ko banque centrale autorisé ah. woon. franc CFA moo koy garanti. ok cest à que dañuy jël dañ naan njàpp yor nga CFA. Khadim <laughs> yor nga CFA. Mamadou yor nga CFA léegi indi leen seen cent mille francs. une muy 300000 loolu moo tax ñu nga gën a éclaircir. Ah, voilà léegi ku ci nekk ci ñun indi francs xam nga muy 300000. Mhm. ñu jox francs sauf que yow say 100000 francs CFA boo ko yoroon. Mhm. mën nga ko jënd produit bu jógee Chine. Mhm. mais say 100000 francs euh, boo ko yoree ci monnaie locale mën koo jënd lu produit bu nekk ci dëkk bi. Hmm. rek boobu échange troc boobu rek la remplacer pour faciliter kii bëgg troc. mais nga fexe parce que gis nga booy lekk lu jóge ci réew mi. donc consommation locale bi sax dafay finalement day doon une réalité loolu économie solidaire. Ah, ah. cest que baykat yi ci bopp dañuy dem ba déplacer dañuy dañu dañu démystifier complexe naan non li France la jógee lii États-Unis la jógee damay privilégié man su ma bëggee naan soow. Ah, ma bàyyi soow boutique bi. dem soow kay kay ratti nagam ma koy ma koy lekk. Hmm. su ma kooku kii ratti nagam bu ma bu amee billet bi. au lieu que mu jënd ceeb buy jógee Vietnam mais tout à fait ah. moo tax dañ naan day participer sur l'environnement ci ci ci la bonne santé des gens ah. ça ça dire que pour man débat bi ñu ci def mm. mais vraiment amul benn sens mm-hmm. moom kay nañ ñaan yàlla banque centrale euh, man koo autoriser mais yooyu pour man toutes les zones mm-hmm. di ko partager da leen di permettre ñu mën a def échange seen biir nit ñi commencer démystifier lu sonal pays africain yi lu leen sonal mooy teel a gis ni ñoom li ñu am baaxul li baax mooy lu jóge bitim réew te bitim réew sax ñoom dañ koy def la France les les les États-Unis même Kenya aussi professeur docteur mais je vous dis que uh-huh. la économie loolu économie solidaire jàppalante la damay naan souvent boo nekkee université uh-huh. bu dëgëree ba dëgër nga bëgg a fóot lu amoo amoo sax 1500 yow fay maire bu lay fóot maire da nga ko jox 15 tickets. non 10 tickets Moussa Diakhaté neen loolu fraude la. non loolu xam loolu xam loolu lu muy lu muy lu muy muy teg. kudu da koy tere ah, danaa wax naan. benn boutique bu mu jël ticket mais ce que les gens ne savent pas. mooy le boutiquier lui. Uh-huh. Uh-huh. ce qui l'intéressait quoi dina ma jaay ataaya. Uh-huh. guddi xam nga kudu du liggéey guddi. dëgg la. ticket yi dañ ko jaay guddi. Uh-huh. mais am na koo xamante ne guddi lay ñëw bëgg a reer amul fu mu reer day dem ci boutique jënd ticket c'est-à-dire euh, bi. Uh-huh. du génn du génn université. du génn uh-huh. université mais à l'université tout le monde peut l'accepter. loolu mooy mën la ko cest à day créer juste benn zone boo xamante ne dafa fermé. université loo fa bëgg. koo fa jox ticket parce que ticket bi ngay jël xam nga ni kii da koy soxlawaat pour pour pour año ticket mënu faa mënu faa lamb. c'est vrai à de à de ce moment. Mm-hmm. mais du fa génn. Mm-hmm. mais boo fexee ba dëkk mel ni Casamance nga ne képp kuy bay képp kuy sàmm. Mm-hmm. képp kuy napp lépp loo fa def jàppal ni jarul sax nga koy jaay bitim réew. fii lañ koy jëndee fii lañ koy lekkee fii lañ koy transformé fii lañ koy defee nii dina tax kenn ku ci nekk commencé xam naa ne su ma fi amee marché dina am ay clients. Mm. le problème du Sénégal mooy client yow boo doon jaay man may jaay di jaay di jóge bitim réew. am na ñoo xamante ni faible nañu faible goo xamante ni. surtout la Casamance grenier la pour mm-hmm. Sénégal. mais tout à fait moo tax nag pour nga développer grenier boobu. Mm-hmm. foo nga créer des mesures incitatives. Mm-hmm. nit ñi ñëw. maintenant il faut voir yan stratégie la teg au lieu que ñuy pes sàmb te wax xamuñ lu mu walis. ñu laaj ko yenn stratégie lay teg yan secteur la bëgg a développer pour fexe ba ñu am économie endogène boo xamante ni lépp lu Casamance bëgg. dootu ko génne muy yëre muy parce que nit ki bu lu muy lekk lu muy naan fu muy tëdd. lu muy sol bis bu ko réglé mais kooku soxlaatul dara bitim réew soxlaatul dara yu jóge ci bitim réew mm-hmm. complexe d'infériorité bi ñu am ñun jàpp ni lépp lu ñu war a sol dafa a jóge à l'étranger mm-hmm. ba tax amuñu dara lu ñu développé à l'intérieur loolu moo tax ñu dépendant maintenant bu nit mënee taxaw nag commencé xalaat ci ñu war a bàyyi dépendance boobu yem ci li ñu am moi je pense que bon, au moins nañ ko déglu. Mm-hmm. après bu bu waxee les gens ñu challenge ko. au moins il a élevé le débat. tout à fait mais mais pes sàmm xam nu ñu ko waxee pes gémminu sàmm. Uh-huh. parce que simplement boo dëkkee Ziguinchor te loolu c' est très injuste. il faut que mm-hmm. nit ñi ko ku mm-hmm. dëkk Ziguinchor amoo droit wax dara ci réew mi. boo waxee ñu ne ah yow bi kat da ngaa bëgg mais koo xamante ne Dakar gii la dëkk njabootam di jàngee Dakar mu liggéeyee Dakar bëgg a nekk président Sénégal mais kooku <laughs> noo koy mën a wax ay affaire indépendante ah, bu doon def indépendance de qu'est-ce qu'il fait euh, euh, qu'est-ce qu'il en étant candidat à l'état du Sénégal mm-hmm. je pense que vraiment débat mm-hmm. day gën a indi frustration ci une partie du Sénégal et mm-hmm. Sénégal ñun ñëpp ko bokk il faudra que ñu xoolaat discours yu ñuy tenir li ñu mën a permettre ki dëkk génne dans leur logiciel mental ku dëkk Casamance amoo droit wax dara ci réew mi sinon rek dañ naan ah Casamance.